procédera par euh, des ateliers de renforcement. en plusieurs groupes. À noter la présence euh, des Saoudiens en l'occurrence le capitaine Khalidou Koulibaly, le portier Doudou Edouard Mendy, également à présent cette septième séance euh, de l'équipe nationale du Sénégal. Quelques tours de terrain. Et ensuite, euh, ce sera certainement les circuits de passe qui seront en place au menu. Pour rappel, euh, stage a démarré depuis le dimanche dernier et que dans moins de quatre jours les lions recevront euh, les léopards comme je vous l'ai dit euh, dès de mes propos les léopards une équipe de la République démocratique du Congo demi-finaliste lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations dirigée par euh, l'excellent sorcier blanc Sébastien de Sabre travaille dans la continuité, bien puisque comme je vous l'avais dit, apparemment l'ossature est Sauf euh, certains cadres absents pour cause de blessures comme euh, l'attaquant vedette Cédric Bakambo, il est absent. Mais sachez que le talentueux Gaël Kakuta sera de la partie, de même que Yohan Wissa, auteur d'une très belle en Côte d'Ivoire, le CCTR de Braga. Également Simon Benza, auteur de 23 réalisations cette saison. Sans oublier le ministre de la Défense de l'équipe congolaise, Chancel Mbemba, le Marseille, partenaire de Ismaël Sarr, même, euh, ce sera face à un gros morceau qui est le Sénégal, qui est devenu maintenant une institution de football, ça il faut le dire, où il y a des joueurs de classe mondiale, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, notre Nyancho national, Sadio Mané, toujours pas d'informations sur euh, son incertitude puisque comme vous le savez, la dernière fois, il était sorti sur blessure euh, lors de euh, la finale de la Coupe du Roi des Champions face à Al-Hilal de Khalidou Koulibaly. D'ailleurs, euh, il est présent. J'aperçois également Papa Alassane Gueye, récemment transféré, ou bien euh, qui a trouvé un accord avec euh, l'équipe de Villarreal en ah, Liga espagnole. Papa Alassane Gueye a fait une très bonne canne, une très bonne canne, autant pour moi, en Côte d'Ivoire. Même s'il était out lors euh, des de finale, que le Sénégal avait perdu miraculeusement face à l'autre Ivoirien. Et voilà nos chers lions. J'aperçois également le préparateur des gardiens, Tony Mario Silva, finaliste malheureux lors de la Coupe d'Afrique des Nations de 2002 au Mali et quart de finaliste en Asie. Tony Silva passé à l'AS Monaco, qui était doublure de Flavio Roman en 2004, l'année où l'AS Monaco avait disputé la finale de la Ligue des Champions, perdu face à l'FC Porto. Ce jour-là, Tony Silva était le doublure de l'excellent portier Flavio Roman. Par la suite, il est passé par euh, LOSC avec euh, un match de l'UEFA Champions League contre Manchester United de Moussa Sall Tidjani. Ce jour-là, il avait pris, encaissé un but sur coup franc de Ryan Giggs. Je ne sais pas si vous vous rappelez. <laughs> Moussa yëngal na bopp bi mu ngi confirmé li may wax. Moussa man du bokk ak xale yi nga xamante ne one xbet moo leen booleeg football <laughs> dama judd nekk ci balaa je parle <laughs> voilà fekkee naa lu bëri. Voilà, Tony Silva Armum, il est devenu maintenant l'entraîneur de l'équipe nationale, le préparateur des gardiens de l'équipe nationale du Sénégal. Et voilà, c'est qui avait stoppé le penalty de Rigobert en à Bamako. Comme vous le savez, le bad boy également, <laughs> qui fait partie du staff technique de cette équipe sénégalaise. Et là, je vous double ballon El Ronigno qui a débuté au Stade Rennais, passé à Sochaux, au Racing Club, de Lens, avant de s'envoler en Angleterre pour déposer ses valises à Liverpool, passé également à Bolton Wanderers, Blackburn Rovers, Southampton, Sunderland, et voilà El Hadji Diouf également qui est venu prêter main forte à ses petits frères, sans oublier également l'un des héros de la génération de 2002, le teigneur défenseur central Lamine Diatta, qui défendait les couleurs de l'Olympique lyonnais. Et voilà, lui aussi il fait partie du staff d'Aliou Cissé. À noter qu'il y a un nouveau analyste vidéo qui vient d'intégrer cette équipe sénégalaise. J'ai oublié son nom, mais quand même, il a pris fonction depuis hier. Il est passé par euh, beaucoup de clubs. Et chef Mahabi, tout à l'heure, euh, Banopi. Donc, comme nous l'avons dit, légui apparemment groupe bi mat na ba mu des euh, ñenn rek ñoom ñoo manqué ku ci mel ni Sadio Mané wax nañ leen ko nañu ni dafa am uh, gaañu gaañu bu bu mu àndaalee kerook bi muy ñëw uh, samedi xam ngeen ni ajjuma bi ñu weesu mi ngi doon uh, disputer la finale de la coupe du roi des champions de l'Arabie saoudite moom ak Kalidou Koulibaly finalement Koulibaly moom moo ko mujj jël ci jongante dàq door mbaali maanaam suspensive séance fatidique des tirs au but ci jogante boobu nag bu ngeen fàttalikoo Sadio Mané juste bi ñu mi-temps wee rek euh, dafa daal di euh, génn li ko waral rek mooy euh, soit ab jeune lay nekk wala mu nekk en tout cas mënuñu ci mënuñu ci avancé parce que jusque la fédération sénégalaise bu football dafa gu ci benn communiqué ngir wax ñu véritablement lan moo xew ci wér gu yaramu Sadio Mané te du ñàq ni peut-être bu ñu génnee ci séance su tey bi dinañu ñu tegal lu leer ci table bi ngir ñu mën a xam rek euh, est-ce que Sadio il sera opérationnel pour le match de jeudi face euh, à l'équipe des Léopards de la République démocratique du Congo ou bien est-ce que Aliou daf koy bàyyi mu noppalu ñu xaar ñaareelu rencontre bi contre l'équipe de la Mauritanie le derby entre deux pays voisins mu nekk ñaari match pour ne pas dire euh, décisif mais plus ou moins important que pour rappel euh, Mauritanie RDC kongo daf ko gagné RDC kongo jamono bi mi ngi toll ci ñetti poñ nekk ci ñetteelu place bi euh, Soudan moo nekk ci ñaareelu place bi am ñeenti poñ Sénégal nekk ci place bu njëkk bi daal di am également ñeenti poñ donc loolu moo tax Sénégal a l'obligation au minimum de sortir avec quatre points sur l'ensemble des deux matchs pour euh, quand même euh, daal di mën a garder euh, espérer bokk daal di garder position du leader bi mu occupé actuellement à la tête ci biir groupe bi mu ànd ak Mauritanie Soudan du Sud Soudan Togo ak euh, république démocratique du Congo bi nga xamante ne donc euh, moom la ñu war a jàkkaarloog euh, alxamis bi ñu dëgmal war yamook juróom-benni fan. juróom-benni fan ci weeru juin. national du Sénégal le Clermontois Mory Diaw moom ngeen di gis noonu mu nekk à l'épreuve ak Tony Mario Silva à gauche mu andi euh, fa Doudou Edouard Mendy à droite mu am euh, Seny Dieng qui avait débuté euh, le début de la CAN 2021 li nga xamante ni Edouard Covid bi daf ko laaloon mu defoon prestation bu baax moom euh, Seny Dieng depuis loolu Aliou Cissé dafay renouveler confiance am ci moom chaque fois il est présent ci rassemblement yu ni mel ngir défendre les couleurs de l'équipe nationale du Sénégal Mori Diaw également même si son équipe clairement dafa def saison bu xaw a jéggi moom aussi bokk na ci gardien yi nga xamante ne ci gardien yi ëpp avenir euh, ci Afrique euh, ci gardien africain yi ci la bokk moom Mori Diaw nekk le spécialiste des pénalties am na ñuy wax ni la dernière fois lors de notre élimination est que du El Tactico dafa doon def changement génne ki nga xamante ne moom mooy euh, Doudou Edouard Mendy remplacé ko par euh, Mori Diaw mais quand même bu leen fàtte ni Doudou Edouard qui avait permis à l'équipe du Sénégal euh, de s'adjuger son premier titre continental en stoppant deux pénaltys face au pharaon d'Égypte donc am na benn raison bu war a mën tax ñu doon ko changer même bu fekkee aussi tamit euh, d'autant plus que la hiérarchie chez les gardiens de but loolu dafa nekk lu nga xamante ne dañu koy respecte Edouard Mendy jaar euh, Stade Rennais jaar Le Havre jóge fa daal di jaar ci euh, dundu galère bu metti jékki-jékki rek. daal di décroché benn contrat en Premier League anglaise à Chelsea foofu la dem bañ naan est-ce que du mooy le maire gardien du monde mu jóge fa gis ngeen ni ci euh, troisième saison am def ay contre performance yu tegaloo loolay tax nag euh, club bi poussé ko vers la sortie mu dem nekkoon ci crise raison pour laquelle mu jël beneen destination daal di dem euh, Saudi Pro ca Arabie Saoudite ngir poursuivre carrière am foofe jamono ji foofu la nekk l'excellent Edouard Mendy bu ñu ñëwee également ci beneen groupe yi yéen a ngi gis Abdou Diallo Habib Diallo le Thiessois ak beneen Thiessois bi le fils de Cheikh Sirat Sarr l'entraîneur de la Sonacos de Diourbel Pape Matar di Carlos l'auteur du premier but face au Soudan du Sud un but matinal à la 40e seconde Pape Matar de Tottenham FC ci groupe bi yéen a ngi gis essai ay circuit de passe toujours yaa Elimane Ndiaye Kella moom ngeen gis Idrissa Gana Gueye Michael Ngor Faye Habib Diallo ñoom ñoo nekk noonu def ay circuit de passe et voilà Pour rappel, euh, la séance de demain est prévue à 19 mais à huis clos. Après-demain, la séance sera ouverte à la presse euh, que pour quinze minutes. boobu mooy nekk veille match bi et puis euh, bu ñu ci jógee bu ñu ci jógee gis ngeen geste technique. group bi liggéey noonu pratiquement ñaari groupe yi seen bal wàcc na ba mu des group bi nga xam ne ñoom ñoo def chasuble vert yi bal baa ngi doog a wàcc par euh, Eliman Ndiaye euh, applaudi par euh, benn partie ci public bi nekk ay xale yu ndaw yu déplacé wu ñàkk ni ñoom ñu dëkk ci alentouru stade bi fii ci ñaajo en tout cas c'est bien d'encourager ce genre de choses c'est normal puisque y a que des jours techniques ñoom ñoo nekk ci atelier boobu gis nga Ilimane Ndiaye moom mooy diriger lu ni mel gis nga leen moo tax cinq dañ ko téye lu yàgg leen fàttali ni bu ñu jongante ak euh, RD Congo le 6 euh, le lendemain 10 heures contre 10 euh, heures war a yem ak juróom-ñaari fan bu fukki waxtu jotee ci suba dinañu def séance de décrassage donc li nga ciy déggee muy que ni dans l' après midi en principe dañu war a voyager dem Nouakchott ngir teel jël seen i repères ngir waajal jongante dimanche bi war a yem juróom-ñeenti fan ci weeru juin war ci jàkkaarloo ak Mauritanie. Match comptant pour la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde nord-américain 2026. Sénégal-Mauritanie. Ce sera un match historique. Un match historique entre deux pays voisins. le rythme est élevé depuis euh, pratiquement 10 minutes depuis que nous mettons en place euh, un jeu réduit ci espace réduit 6 contre 6 gis nañ ñu ngi élevé euh, rythme de jeu bi voilà et c'est dedans fàttali ne Sénégal mi ngi bokk ak poule euh, Soudan du Sud mi nekk ci ñaareelu place mi ex aequo ci nombre de poñ ak Sénégal daal di am quatre points Sénégal mi jël euh, premier ci groupe bi RD Congo di République démocratique du Congo nekk adversaire Sénégal le 6 juin moom moo nekk ci ñetteelu place bi Mauritanie wala Togo daal nekk ci ñeenteelu place bi Mauritanie moo nekk ci juróomeelu place bi Soudan du Sud daal di nekk ci place bu mujj bi daal di am benn poñ mel donc li des ci séance bi bëreetul